nun ñépp moo ñu boole ci benn buum waaw kenn ku ne di sa mbokk morom ndax Cheikh El Hadj Malick radiallahu ah gis ngeen ko ci testament moo wax piir ni këram gannaawam bu mu fa déggati baatu taalibe mukk baatu mbokk rek waaw moo ko santaane xanaa nun kay noo def lu nu neex rek yooyu eh, sëriñ bi nga ne eh, doxul doxul doxul doxul moo ni woon baatu taalibi bu mu jibati ci këram nañ ko soppi def ko baatu mbokk waaw moo ko wax de nag la ko la ko neex ci këram waaw góor gi seeni ndoy ni ko may ma rekk génne ma ci man ma nekk taalibe mu ni ko ah, mënul nekk nag te ku rusoon góor gi seeni ndoy la woon ku ko rusoon la woon mu ni ko mënul nekk nag parce que jamono taalibe paase na jamono mbokk rekk a fi des waaw jamano taalibe paase na jamono mbokk rek moo fi des Seydil Hadj Malick moo ko fi bàyyi def ko ci testament dénkaane ko tabarkalla te xamoon na luy taxoon mu wax ko ndax jamono taalibe paase na jamono di nga dem ci mbooloo gis fa bés bu ne ma wax ko xale yi ni leen li seen maam def kenn mësu ko gis tabarkalla tabarkalla mooy ñëpp a ci moom ñëpp a xër ci moom tabarkalla ku ni mbokk laa yépp moom loolu la ko yàlla defal fa tabarakallaa sunu xalaxe yàlla sax ba faw li ci njariñ it nu jariñoo ko ci barkeem la nu ko yàlla boole defal